ñuy sant suñu doom ji góor ji di seex Tidiane nee leen kuy wàll yaan sa kër daa tëggut Cheikh Tidiane su Cheikh Tidiane doom ji bu jógee ñëw ci ñun bëgg li mu bëgg tey sunu doom nu jur ko dañuy ànd ak moom ci li mu bëgg ci kaw li mu bëgg nag ñu koy xamal li nga xam ne nit moom lañ bëgg ndax comme que yàlla dogal na ñun sëriñ bi rek la liggéey te sëriñ bi rek a fi ne lu nu waay man di defal ak ku ñu jàppale nag nu jàppale ndax suñu itte ci sëriñ bi mom rek moy suñu itte cheikh doon xale korak yaru ko rak daw la ma sa gisee cheikh Tijaan te di dem kërëm ñu tektal ma ko ma koy laajte ba dem ak mom ci buntu Kër Ñang jumaa Kër Ñang ak Abi Fall nuyoo rek ko yow de xale bu gol bi xamoo bu ko cheikh tidiane mu ne ma man de ngi ni yaay ma ne ko man da dan ma boole won ak yow mu ba ci ku dëpp fekk da doon waaj xey mu dëpp and ak ñun dem ba kërëm mu lay sunu itte mu wax ñu wax ko ko ba mu egg mu dox ca tank yu rafet dox ca matuwaay bi bu rafet kon bu batiku wa ñëw fi bëgg li mu bëgg bëgg nu jappalé ko danga ko koy jappalé ba mu neex sunu ko jappalé ba mu neex nak nee café kafe ak kang buñ koy naan suukar a tax waaw ndax dañ fay jaar jaarati fi dellu fi jaar jaarati ba démissionné bayina na dootuñu jappalé kenn waye nak leen nak kuy wal yaan sa keur da tëggut sunu dom ji bu joge bëgg lim mu bëgg te ñew ñëkke ko fi ñun dañ ko ci jappalé ba mu neex li nga xam yalla dogal na li li nga yalla dogal na ñu ngi koy def mu yëkkat nak lamu yëkkat joxnu mbolam nu fi def mbaa luñ fi sees yu basi fi rangalé ba sees ba yu ñu fi luyee li basan yu ñu fi rek moko fi indi te lamb posam ñun nag ku nu nekkal la nekkal la waaye ku nu nekkalul nag fàtte na la ñu ñaan nag li nga xam ne moom ngay bëgg di ko taamu ba ñu fi ñun nii di ko fi wut yàlla na ko am ñun nag takk nañ suñu ndigg laxasaay ànd ak yéen fas yéene ànd ak yow foo ne nu ne fa te foo wiire rek boo nu woo rek ñu teg naa salaamaaleykum wa rahmatulaay. salaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi leen nuyu. yéen mbokki waa Kër Ñang yépp ñi ngi nuyu soxna Ndumbe Mbay ak soxna Nafi Caam di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxool Sëriñ naa lam mu jàllaleel ñu ko ci ñi fi teew ñépp naa Sàmb maa ngi jégalu Sëriñ naa Sàmb laa jël nuyoo boobu di ko teg ci loxoom mu jàllaleel ma ko ci mbooloo mi yépp maa ngi sant bu baax nak forte délégation bi nga xamni tay ño fi nek li waral jotay bi nak tay pour ma wax ko rek mu leer li nga xamanteni ni mom lañ doon def muy ay visite li ñuy tuddé visite de proximité di dem ci mbotay yi ak suñu maire yi nga xamni ñi ngi and ak ñom ci politique ñu di leen séti bañ ko dalee def ba léegi mat na weer tey nag soxna na fi caam moo ko aaye ñu jël ko wal koo tëje fii tey muy li nga xam ni nii tey mooy visite de proximité yi moom la ñuy tëje fii également bëgg cee lancé waale suñu mouvement bi nga xam ni ci lañ bëgg a ànde di ci liggéey euh, ba élection yii di ñëw muy le 24 février incha allahu taala le président de la république Macky Sall jël ndam li mu nekk ngañaay lu leer loolu nag suñ ko bëggee dañoo bëgg Kër Ñang indi ci participation bokk ci centre de vote yi nga xam ni nii dañuy gañe ngañaay loo xam ni du am benn werante muy première ci histoire senegal ba élection dalee am ba léegi ci président de la république Macky Sall musul gañe fii tey nag ñu jël sumeeku futeeku nelawuñ yendalaluñ fanaanaluñ ngir rek bëgg mu am ndam ñu bëgg nag première ndam li mu am ko ci élection 24 février yi ñu jëm te Kër Niang jël paie. loolu nag mënul am sans organisation ndax responsable yi bari nañ ñëpp a ngi liggéey waaye nag ku nekk dañoo jàpp ni combat bi da nga ko war a jël def ko sa combat te man li ma jàpp man Cheikh Tidiane combat bi sama combat la man maa ko war a jël porter ko dem seeti militants yi fexe ba ngañaay li su dee am kenn du ma ci ëppale ma ñëwoon nag di lancer. mouvement bi nga ni mouvement mouvement bi nga xamanteni moy mouvement andak Cheikh Abdou Mbake gayna dafa un grand responsable bo xamni dafa nek fi ci dëkk bi di liggéey bam ñu ak ñun ñu déggo mu di wax ak ñom lañu man ñu yëkëti di leen ko jox la nga xamanteni ni am nañ ko luñ ñu diis la ca man dañuy yëkëti jox leen ko ñu ni nag kon danañ lancer mouvement bo xamni ni danañ lancer mouvement bo xamni tay mouvement bobu ci lañuy andé nek ci derrière Cheikh Abdou Mbacké suñu responsable nga xamni moy suñu buntu ci président de la république comme yeen man may seen buntu